al ibaadatu wal xidma di jaamu yàlla ak liggéeyal lislaam alhamdulilahi rabbil alamin allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah wallahu akbar allahu akbar walilahi alhamdu suma salaatu wasalaamu ala almabuusi rahmatan lil alamin sayidina wa mawlana muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa sahabatihi ajmain وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله ثم ما بعد عباد الله فها نحن نقرأ إذا لم تنتهي الطريق لا تنتهي الخطوات ما معنى ذلك؟ نحن جميعا في أيام الماضي أيام شهر رمضان المبارك كنا نمسك بالأكل والشرب والجماع خلال النهار ولكن في هذا الوقت هل نستمر بذلك أم لا فالجواب نعم إلى الأكل والشرب والجماع نستمر لأن دين الإسلام يستمر للمؤمن أمره ونحيه خلال حياته بقوله تعالى جل شأنه وعسى كماله في محكم تنزيله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين اليقين هو الموت الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر walilahi alhamd walilahi alhamdu wa sukru hamdan kasiran wa nukabbiruhu takbira summa salaamaani ala man laa nabiya ba'da ixwata aliman waalamu anna diin alislam xayrun min aladyaani samawiya wa kitaabuhu xayrun min alkutub وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هديه خير من الهدي وأمته خير من الأمم صلوات الله وسلامه عليه ومما يستحب بعد رمضان صوم ستة أيام من سوال كان كصوم الدحر أو كما قال وكذلك التكبير إلى صلاة الصبح من يوم الرابع في هذا الشهر عباد الله بادروا إلى الإخلاص في القول والعمل لأنه رأس مال المؤمن إذا ناله نال الكل وإلا فلا وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين عنها سئلت سئلت عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم والقرآن يأمرنا بالمعروف وينهانا عن الفحشاء والمنكر في كل حين من الأحيان ولذلك تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين آمين السلام عليكم wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokk jullit yi ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen ndokkeel di leen balu xaq di leen balu xaq di ñaan yàlla mu boole nu jëkkal ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci ab yonenteem sallallahu alayhi wa sallam suñu xutba tey dellusiwaat na ak ñun di tënk li wolof di wax bu yoon di xutba sul bi jeex mu laaj mu laaj bu solo mu ne ci fan yi ñu weesu rek diiru fanweeri fan yëpp bëccëg bi suñu boroom digaloon na nu ñu jàpp ci yu bare baree bari mu ne ndax fanweeri fan yooyu nag su jeexee dañuy bàyyi jàpp yooya delluwaat di yaatal yimbe wala dañuy continuer ci jàpp yi ñu sunu boroom digaloon mu ne nag na ngeen xam ne kon fanweeri fan yooyu ñu weesu jàpp ñu ci jàpp woon léegi ñett képp lañu ci mayaat waaye yëccër si yëpp nam nu ko digale woon ba tey noonu lañu continuer di ko digale mooy léegi daal ci bëccëg yi may nañu ñuy lekk di naan nee na suñuy soxna yi terewu tereetuñu ko ci bëccëg yi guddi gi waaye nee na mboolem yu ñu teer woon ci weer wi nag na ngeen jàpp ne ba tey lislaam dafa continuer di ñu ko tere ndax nee na lislaam saa su ne day lang jullit bi di continuer di ko digal di continuer di ko tere feeg mi ngi ànd ak xelam feeg mi ngi ànd ak ruwaam te nee na loolu buñu demee ci alxuraan dañ ko fa fekk suñu borom ne wa'bud rabbaka hattaa ya'tiyakal yaqiin yow jaam bi foo toll guddi yeeg bëccëg yi suba yeeg ngoon yi na nga rek di jaamu sa borom te bu ko bokkaale kenn ba yaqin di ñëw yaqin nag nee nañ mooy mooy de ci ni ko alxuraan tere kon dara jaaru ci julli saa su ne nga xam ne suñu borom feeg yokkutoo rek moom mi ngi lay digal lam la doon digal di la tere lam la doon tere mu ne bokk julli na nga xam ne diine lislaam itam dana doy sëkk ci ab jaam mu sant yàlla bu bokkee ci diine lislaam ndax diine lislaam mboolem diine yi nga xam ne ñoo wàcc ci asamaan moom moo ci gën téere bi ñuy tegtaloo nga xam ne moom moo ñu digal di ñu tere muy alxuraan mboolem téere yi wàcc ci kaw asamaan yi moo ci kon ku bokk ca téere boobu bokk ci diine jooju nee na loolu doy yàlla doy na sëkk ak sant yàlla nee na njub ji nga xam ne moo ci jógee jaar ci muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñëw ci ñun njub yi jóge ci asamaan yëpp njub googu moo ci gën ñun ñi nga xam ne yàlla dafa doole nee na ñu bokk ci xeetu yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam xeet yëpp ya xeetu Muhammad moo gën ci ci ci xeet yëpp ndax loolu it buñ demee ci alxuraan dañuy fekk mu ne kuntum xayra ummatin uxrijat linnaasi ta'muruuna bil ma'ruuf wa tanhawna anil munkar nee na yéen suñu borom da leen a tànn ngeen nekk di xeet ngeen di xeet nag ngeen di jëf la war di jëf bu buy wax ngeen di war wax la lay war di wax ñu xam ne daal bi ñu nekkee ci koor koo mosana fekk mu toog sax soo ko bëggoo jëwloo mu ne damaa woor suy wax ci biir waxam su namee wax lu dul dëgg ne damaa woor lépp loo ko def loolu te mu doon naka su dul loon rek mu ne damaa war nee na melokaan yu rafet yooyu nag ak jikko yu rafet yooyee nee bi ñu waree itam nee na moom lañ war a continuer jéem ko tàmmal suñu bopp tàmmal ko suñu cër nga xam ne loolu danañ ci mën a dund te nee na loolu ci dund dund nga dëgg dëgg lislaam bokk na ci nga xam ne sopp nañ ko ci ginnaaw bu ñu waree maanaam takk biriyaat yooyu ngeen dégg ma ma ma jàng ko ci biir xutba bi li ko fi dalee démb ba ñuy dem ca bisub ñeenteel ba ca jullit suba ga daañ sopp ci jullit bi lool saa yu jullee waxtu juróom rek mu wax allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah wallahu akbar allahu akbar walilahi alhamdu moom itam dafa bokk ci xeet yi takbiir yi nga xam ne dañoo bari ci yooba lool ndax yàlla jaamu yàlla yëpp la fonk yëpp la bëgg ku def waaye nag di ko fàttaliku ak di ko tudd yooyu la ci gën a fonk ndax nee na sama jaam saa yoo demee ba fàttaliku ma ba tudd ma nee na ma ne dinaa dem ci mbooloo mu gën mbooloo moom ma tuddee ma tudd ko foofu te boo ñu xamoon bi tolluwaay ba mu toll fa yàlla ak li mu ñu mën a jural léeg-léeg lu ñu ciy def rek daañ ko xeeb kon daal képp koo xam ne julleeti ti nga waxtu yu juróom ba ba ñu àgg ci bisub ñeenteel bi ci weeru koy wi ñu ne incha allah yàlla ñu ci yàlla yóbbu ba ba ñuy julli suba ca bis booba kabir kabar yooyu moom na ko bari loo fay def lool la ca topp mu ne nañ gaaw ñun ñëpp jëm ci ixlaas ci wax ak jëf ixlaas nag baat bi maanaam sellal lay firi waaye soo ko noonu rek du tax nit ñi ni ñu koy déggee mooy ixlaas boo déggee ñu wax ko mooy jullit boo xam ne fu mu toll ay jëfam ak i waxam dana ko segg ci sayir ak baatin ba xam ndax lépp jub na wala jubut su lépp jubee mu continuer su lépp jubut la ci jubut mu dindi ko waaye bu noppee ci loolu yi nag da koy def ngir jëm yàlla kat nga xam ne daal du ci xool ku ko gërëm du ci ragal ku ko waaye da koy def jëm yàlla nee nañ nag bi su xasee dem bàgg ci maqaama moom nee na am na li ñu am na li ñu tuddee rasul maal rasul maal nag mooy mel ni commerçant buy commerce am bitig bu yaatu bu bu bu nekk ci barab bu ñu war a jarale mu teg ci am capital am marchandise neen jullit bu su xasee àgg ci maqaama boobu daal mel na ni commerçant boo xam ne am na bitig am capital la ko dese rek mooy mën a jaay su ko defee ak ak commerçant mën naa jëm ci kanam nee na jaam bi it su xasee am ixlaas ci ay jëfam ak waxam am na capitalu jaamu yàlla lépp lu mu gën a buurati jëm ci suñu borom rek capital bi day gën a yokk su fekkee fekkee ne dugal na ca lu ko yàq it mu yàqu rek mu ne nag su ko jullit bi amee na xam ne am na lépp waaye nee na saa yu demee ba ñàkk ko na xam ne amatul dara kon mbokk yi ixlaas lu ñu war a góorgóorlu la suñuy jëf ak suñuy wax lépp lu ñuy defati rek yàlla tax dem na sax ba bu ñuy defati wala ñu nar a waxati bu yàlla taxul rek nañ ko ba ndax toujours damay wax ne def def soo koy def yàlla taxul bu dee da ngay joxe sa alal wala ngay daan sa doole bu fekkee yàlla taxul booy ko ndax bu dee sa alal dañ koy ñàkk bu dee sa doole ngay joxe da nga koy ñàkk dem na ba ba ci sarax yi ñuy def ak yooyu yëpp lépp lu ci jàmm di def te yàlla taxul booy boobu nga ndax yàlla looy def ci taxul doo ci am tuyaaba da ngay ñàkk sarax rek eh, te te sarax itam bokk na ci ay tuyaabam moom it lépp lu la koy xeñ lu lay xeñ yool ba jar nay daw ndax alxuraan moomu ne lan tanaalu birra xatta tunfiqu mimma tuxibbuun wa ma tunfiqu min sayin fa inna laa bi alim lépp lu ngeen di joxe te ma tax te ngeen seet li ngeen gën a bëgg seen alal ngeen joxe ko mu nëbbu ak mu feeñ mu soree ñee ak mu jegee ñee na ngeen xam ne man yàlla xam naa te bokk yi xam-xam yàlla doy na lépp ci jëf wax nañ ne sëriñ bi ci jamonoom bi mu nekkee njaareem dafa am ku ma mos a bind kaamiloo alxuraan jël ko def ko ci jaafira ju rafet waaye bi mu ko bindee ba màgg nag dafa bind aw turam kewet ga ak santam ak dëkk boobu dëkk jébbal ko sëriñ bi bi yër téere bi ba àgg ci adresse bi waa ji def mu woo ko ne ko yaa def lii rek mu ne ko waa maa ko def mu ne ko loolu ci jublu mu mu ne ko topp si mu topp si mu ne ko ndax yow bind gi nga ko bind ndax wéerul la wóorul la ndax yaa ko bind mu ne ko ah kay mu ne ko man mii nga ko yëg te wax ma yaa ko ndax xaw ma ko mu ne ko ah kay mu ne ko ndax yàlla xamu ko mu ne ko ah kay mu ne ko maa ngi lay dénk di la digal ci lépp looy def ñetti xam-xam yooyu na la doy ci jëf doy la ci wax kon loolu day daal di ñu tënkaat di ñu wax lépp lu mu mën a doon rek nit ki di ko def bu dee joxe addiya sax da nga koy def ngir jëm yàlla bu dee sarax def ko ngir jëm yàlla bu dee yàlla yi mu moom la ñu tuddee loolu nag ku xare ba am ko moom am nga capitalu jaam yàlla capital nag ko am te nar a liggéey bu fekkee ne liggéey sa bopp moom doo ko yàq rot na ba bis boo xam ne ci sayyidatuna Aïsa radiyallahu anha la jógoon mos nañ ko laaj ne ko yonente bi alayhi salaatu salaam lan moo doonoon jikkoom mu ne kaana xuluqul quran nee na daal jikkoom daal mooy alquran te alquran nag moom ji jikkoowoo ko mooy lim ñuy digal ñu def ko lim ñu tere ñu bàyyi ko ndax moom lu baax la ñuy digal di ñu lu bon koo xam ne nag kon guddi yeeg bëccëg yaa ngi sax ci lu baax bàyyi lu bon kon yaa ngi yonte bi yéen a bokk jikko ndax yonte bi moom loolu la doon na loolu nag war na ci ñun ñëpp ci jamono yëpp diiru suñu dund ñu sax ci loolu bu ñu saxee suñu borom mën na noo dimbali nee na fi mu jeexalee gi ñun nag dañuy daal di dem kon daanu ci ay alxuraan bi nga xam ne suñu borom moonu wax ne xayi leen yéen jàmm yi ngeen bennoo nekk benn ci benn baat baat ba mooy ngeen sax ci jaamu yàlla te du ngeen ko bokkaale kenn du ngeen wut ay yàlla wala ngeen koy wutal ay morom nee na loolu képp ku sax dund ci faatu ci jekku ci maanaam sabru tàggoog sa yaram rek moo lay tee dabi àjjana ñu bokk jullit yi faatu dem ko ca jullit suñu dund gi mu gàtt ak mu gudd yàlla na dëppoo ngërëmul yàlla bu ñuy génn adduna yàlla na dëppoo ngërëmal yàlla bu ñuy dajee moom ëllëg yàlla na dëppoo ngërëmal yàlla bu ñuy tàbbi aljana yàlla na dëppoo ngërëmam ak jërmandeem ak njëgalam ci zahir ak baatin bi jaay yaxfirullaahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimiin ci tënk lii moo doon suñu xutba tey ñu ñaan yàlla mu def ci ñun dégg ak topp def ko ci yéen wa aaxiru daawaana an alhamdulillaahi rabbil aalamiin yaxfirullah